moomu wala kàllaama googu mën nañoo wax ne képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah dégg nga kàllaama googu ci biir loolu mu joxoon ma benn téere bu am solo téere bi mu ngi tudd Nahjul Balaaga téere boo xam ne imaam Ali ay mbindam ay xutbaam ak ay xarañteefam mooy ay sajasam loolu lañ ca dëxëñ ci biir téere boobu mu doon téere boo xam ne mag ñi xamoon nañ ko loolu sànq rek maa ngi ciy waxtaan ak oustaz Cheikh Tallou Yène muy wax nu ko ku mel ni Serigne Touba fonke woon ba di ko tudd ci biir silkul jawahir ñu téere bu am solo boo xam ne eh, tarbiya ruuxiya lay wund moom téere boobu naxju balaaxa boobu nag doon li ñuy wax xikma bu ñu nee xikma nag xam naa tey ku mel ni Abu Jaafar moo doon gën a jekk lool si wala imam Cheikh Taalib bu yëg wala Cheikh Ali Dem eh, ngir joxe lu loolu wala ku mel ni Soxna Njaay Malik madame si eh, buñ toogoon fii xëy na ci lay gën a jote waaye yéene ju ma am rek ngir séddoo ak téere boobu nga xam ne dafa fees dell ak ay njariñ ñuy wuti lu nekk fu nekk te amaana la ñuy wuti fu nekk li nekk ci biir téere boobu moo ko lépp moo tax rek ñu bëgg cee ñëw ngir ay laal xekk ma muy sagesse ci wolof ñu di ko wax variété bi mooy lan mooy fu nit jaar ba jàll wala mu amul jot xalaat settental ci xalaat yu kawe ba tënk tënk boo xam ne ku ko dégg te sam xel dara sikku ci di nga ko mën a rafetlu am na wax joo xam na sax ñu ngi ko koy askanale moom imaam Ali te moo di ne alxikmatu baalatul mumin aynama wajadaha axadaha xam-xam boobu muy xarañteef bul seet làmmiñ ba mu jógee waaye xoolal yow la nga ca mën a dégg ak la nga ca mën a jàng nun nag euh, tubaab yi dañoo nax ci lu bari bariwaa na xalaatkat yu ñuy dégg waaye la xalaat la ca ëpp ci suñu téere yii lañ ko jële nga xam ne buñ ne masalan Cheikh Sidil Hadji Malick nee na dañuy déglu rek fettasu wala ñu noppi ne cell buñ ne Cheikh Ahmadou Bamba wax na ñu déglu rek fettasu buñ noppee ne cell waaye tey bu ñu jëloon waxi kenn ci ñooñu ñu bañ caa def aw tuur ñu di ko wërale àdduna bi kuréel bu mu mën a doon bu fa mbind moom àggee duñ def lu dut rafetlu ko xikma boobu nag sunu boroom moo njëkk a wax ne yuutil xikmata man yashaa wa man yubta alxikmata faqad utiya xayran kacira wa ma yadakkaru illa ulul albab mu ne xikma mbir la moo xam ne ku ko yàlla jox rek jox na la mbir mu rëy jox na la itam yiw wu baree baree bare te nag yàlla buy wax ñi muy waxal mooy ulul albaab muy ñi nga xam ne bu ñu leen waxee duñ nangu rek wéy ñi nga xam ne noonu la ñu nooñu lislaam yi di def jamono yi toll day weex ñu ñëw nañu dafa ñuul ñu ne waaw ñu toogaat ba neex leen ñu ñëw ne ah xool nañ ko kat waaye lii ndekete dafa weexoon ñu ne waaw xamoon nañ ko de lu tax waxuñ ko woon bàyyee leen ak suñuy xel ñu di ko fooy te ñu indi ci rek seize gàtt daaw ci concours ba fa amoon te nu demoon ca gis nañ fa fulla yu mat sëkk ci njiit yi ak kilifa yi dëkk boobu muy réew moom ndax xam le nañ ci loo xam ne caméra yi àdduna bi yépp ña nga fa woon toog wala